Adja Imam Babacar Sylla xam nga ko ah. non sincèrement xaw ma ko. nag sincèrement xam na ko. kii xam na ko waaw xam na ko comme dafay ah, ñëw. Suka xam na ko Imam Babacar Sylla. Ah. Ah, xam naa bu dee bu dee looloo li ma bëgg moo tax nga ni xamoo ko di ko xam. non maa ko euh, tey dafa am koo xam ni mooy mooy mooy mooy mooy dërër rek wala mooy une minute ñu ray ko. benn waaye ci événement Ousmane Sonko yi daa bokkoon ci ñu àndoon ak Ousmane euh, sac bi xaw ma euh, vinaigre la ci def xaw ma daal mais en tout cas gis nañ beneen sang bi coow li kii mu jël ab morceau sërxal ko Ousmane léegi nag ñu ni moom moo doon moo euh, empoisonné Ousmane Sonko ñu dem xool première vidéo bi réaction bi après dellu si waat sama gars yi gis ngeen waa ci nii boot sac bi moo sotti Ousmane Sonko affaire posen bi gis ngeen mi ngi ko lëmas ni ci morceau sama gars yi gis ngeen waa ji nii boot saak bi moo sotti Ousmane Sonko affaire posen bi gis ngeen mi ngi gis ngeen waa ji nii boot bi moo sotti Ousmane Sonko affaire posen bi gis ngeen mi loolu ñu def ci vidéo bi nag ñu fàttali ni du ko def euh, mais ci lañ ko gis mooy Macky Sall ne mérite pas ne mérite pas euh, président de la République du Sénégal maanaam bind yi ñu gis ci vidéo bi yëpp niñ ko gisee ci internet bi dañ ko indee waaw internet bi. waaw nekku ni Walfadjri moo bind dara ñun dañoo jël rek indi ko. waaw ah, noonu ko jëlee waaw noonu laa ko jëlee pour leeral xam nga gars yi dañoo kii fan yii moom Walf dafa kii lu ñu wax ñu ne la doonee li mu euh, euh, waa ji vinaigre la yoroon ci biir morceau bi doon ko jox Ousmane pour des fois bu ko affaire yi jàppee ba miir mu mën koo def ci bakkanam ñu dem xool ne waa ji ndek yoo yónni wuñ ko mais moog Ousmane ñoo ànd. leen ziar. Euh, bëgg rek communiquer ci benn image bu ñu gis muy daw ci TikTok bi muy waa ji nga xamante ne dafa óodoo benn saak bu beige jël loxoom teg ko ci mbaggu président Ousmane Sonko ñuy wax ne moom moo ko xëpp poudre bi wala moo ko sotti liquide bi ñu leen di wax ne loolu du dëgg kooku ci sécurité président Ousmane Sonko yi la bokk aussi nekk ci ñi ko gën a jege mu ngi tudd Yarga ñu leen di wax ne euh, loolu ñuy jàllale ci TikTok bi fausse information la te ñun ñii di ko wax dañu bokk ci euh, protocole président Ousmane Sonko te dinañ leen ko démontrer wan leen ay photo yu leer ba ngeen xam ne loolu fausse information fausse information la ñu ngi leen di sant leen gërëm. wala mi ngi noonu kon yarga la. Euh, ñu bari nee nañu gannaaw bi nga joxee morceau bi daf ko doon dimbali parce que vinaigre bi dafa baaxoon ci lacrymogène yi moom itamit ñoom ñaar ñoo ànd waaye bi mu doog a génn ñu bari gis naa ñu koy saaga di ko prise ak ka di wax ni xàmmee leen waa ji ndek yow boobu Omar bun Xataab Gueye waa ji moog Ousmane Sonko ñoo ànd moment bi garde corps yi demee ba réer ñenn ñi xamatuñ fu ñu nekk moom mi ngi ànd ak sang-froid am yore ab saagam euh, di fexe sauver Ousmane ci li mu jàpp ni bu ko joxee bu ko fóonee ci bakkanam affaire yi ko sonal ndax jàpp nga ne réseaux sociaux yi tamit wax dëgg yàlla saa yu président Macky Sall génne nag daan ni dañ ko war a defaraat ñu ni non dafay bëgg a jëlee affaire mais est-ce que itamit lii buñ ko bàyyee nii nii nii duñu raylu nit ci erreur. xam mm-hmm. ne mbir moom ah. bu amee dañuy xool lu ko waral. Mm-hmm. man dama jàpp ni li xewoon mars deux mille vingt et un mm-hmm. xew ci mars bii ñu génn yëpp mënoon na ñàkk. mënoon na ñàkk ba ay. vinaigre ak ay pompe ak diwa ko pompe mooy lan waa ji xëy na di dem ñu encadré ko mu dem tribunal. Mhm. léegi lay xew ca tribunal bi nag loolu yoon moo koy wax. Mhm. mais pour man yii di am yëpp conséquences yi la maanaam ñi waroon a jaar yoon. Mhm. ñoo jaarul yoon te ni ñuy jëlee Ousmane Sonko di ko exposé man dafa maa xaw a tiital. maanaam ci kilifa gu toll nii ba ni mu bëree ay soppe noonu la bare ay noonu. à chaque fois rek ñu mën ko exposé ba ku ne mën a jote ci moom man daal la problème la ci man. problème la ci man te bu ci Ousmane Sonko ak i nitam mënoon na bàyyi xel tamit dina baax. Mhm. parce que aussi tamit euh, képp koo gis mu musa daanu ci àddina. waxuma waa ji moo def ah, parce que jàpp naa ni deful. waaw mhm. ah, mais aussi mun moo wax te ne keneen tam moo def. Mhm. mais tey ji ku musa daanu ci àddina di kilifa. li naan ku la bëgg a jot mën laa jot day xool ci ki la gën a jege mu jaare fa. loolu day am ci àddina. parce que daf ci am ñoo xam tey ñi ngi ci nguur gi mun ñu jote ci Ousmane Sonko te mun ñu ko laal mun ñu ko jege. Mhm. kon tey ji dafa war a gën a prudent ci sécurité ak entourage bu Ousmane Sonko. Mhm. léegi nag li am ci réseaux sociaux yi. mooy amoon na ci bu njëkk mooy bi ñu koy génnee ci bi am na benn takk der boo xam ne dana woon ci agent wu corps d'élite la bokk euh, ñu commencé di partager ay. si photo am naan waa ji moo toj vitre Ousmane Sonko bi. tey jii lii am te lii mu njëkkul rek ci waa ji mais tey jii bu doon ni li naan une foule ne réfléchit maanaam mbooloo bu ñu dajee xel day manqué mais bu doon ni gaawuñu teel a jug wala bokk waa jegul Ousmane Sonko heure bi mun nañ wax ni ici repose maanaam waa ji fii la jaar parce que du ñàkk am ñu ko kar ah, jàpp ni moom lañu fit ngemb pour mu mënoon a dal ci ko Ousmane Sonko am déet mm-hmm. parce que seytaane waxul dëgg mm-hmm. mais ñàkk yàq na xel kon waa ji leeral bi baax na ci mais aussi tamit Ousmane Sonko xoolaat protocole am mm-hmm. mais aussi tamit xoolaat lii di sécurité am mais aussi te nguur gi ñu am sago ci Ousmane Sonko luñ ko bañ bañ bañ bañ di nga wolof it dañuy faral di wax booy bëgg bëggal nànk booy bañ bañal nànk parce que lii mën a judd ci mbañeel moo garaaw. tey jii li ñuy teg Ousmane Sonko génne nañ ko ci oto bu génne woon ci oto bi li du am. buñ ko teguloon ci kanamu mbooloo bi kenn du jote ci moom. damay joxe exemple meeting Kër Massar bi usman Sonko ñëw na ba dugg ci meeting bi génn jour boobu dañ doon tàcc gendarmerie. waaw dañ ko encadré bi muy dugg Kër Massar ba bi muy génn kenn hmm. mënu jote ci moom. Hmm. loolu ñu defoon ci Ousmane Sonko ba ñëpp di leen tàcc pourquoi ñu ko defaat. d'accord parce que tey jii Ousmane Sonko même bu ko mbokkam wala njege ñaaleem tegoon fitna ba leneen xew ci kan lañ koy jiiñ. waaw dëgg la de kon nguur gi ñoo am intérêt ñoo am intérêt sàmm hmm. li di karanga Ousmane Sonko parce que jàmmi Ousmane Sonko aussi dem mooy jàmmi Macky mooy jàmmi nguur gi parce que nit ki moo toll noonu waaye nag ñi ko jege ak moom pour man war nañ gën a xoolaat entourage ak ñu ko jege. Mhm. parce que ku lay ut tam te mënu laa jot. Mhm. day xool ci ñi la gën a jege mu jaar fa. ayca te loolu yàgg na ci àddina. jërëjëf xam naa beneen yoon buy génnaat sax nañ ko jaarale fii Liberté 5 ba 4 bi lay jaar jaar war fajiri ni dem tribunal day gaaw kat tribunal amul benn yoon kese te benn yoon bi ma jaaxal buy demati daal na jaar fii waaw génn jaar wal fajiri génn jël autoroute bi dem. incha allah wuy ji ci jàmm ak salaam su ka. Mhm. Euh, internet de sama maître Fallou Sène moo daan wax naan léeg-léeg du net. Euh, lii nag dafa mel ni da koy firndeel tey. Mhm. muy li ñuy jàpp ni net na. netul buñ sàgganu nag ñu rey ci doomi jàmbur. Mhm, dëgg la moom mhm. euh, ñoomu nee na. ñoom xam nga ñoomu nee na de. ndax moom mi nga xam ne moo jël euh, mouchoir bi. Euh, def ci vinaigre bi. daf teg jox ko ci Ousmane Sonko. mais soppee dafa garaaw su déedéet nag mais woo. fi woon jëkkëru Ndeye Gueye bi bi ko bi waa ji jàppee jëkkër ji di ko rokkos benn soppe moo dawee ca làng ji ñëw euh, waaf ci kaw waaye du noonu foofu gis nga fi mu nekkoon noonu. Hmm. imaginer so xam nga soppi soppeem yu bari ñoo ko def ci internet bi soppi soppi Sonko yi. Hmm. ñoo ko def ci net bi xamuñu woon waa ji nan ko xàmmee. imaginer loolu. Hmm. kon donc moom bi muy def loolu. bu fekkoon am na xale yu ko jotee. buñ ko dóoree rek dootu ko defati. te malgré. Euh, moom ci ah buñ ko teel woon a leeral. buñ teel parce que gis naa ko man. ñoon kii moo ko sotti poison bi. ba wane ko ci gën yëre bi ci weex bi loolu lépp ñu wane ak ni mu taqee yooyu yëpp mhm. waaye nañ ko ni moom moo ko def mhm. imaginaire buñ teelu woon a wax wala moom mu nekkoon ci ful boo xam ni euh, comme li am rek mu jël mhm. def loo xam ne Ousmane Sonko bu boobaa dinañ ko dóor moom ba mu am problème te te loolu lépp ci seen biir la kon nit ki da ngay am noo xam ne danga koy def même loo bëgg-bëgg nit ki amul am ci tuuti sago xoola bi sonk tamit génnee ñu di ko génne parfois bu dul woon mennum Guy Marius Sagna Guy moo ko téye ana ana ni mu àndaloon dañu ne écarté boobu. déedéet xam nga moo gii ñoo nekkoon ci oto bi. mais ana ñu garde corps garde corps boobu écarté nañ euh, mhm. euh, ñoom ñëpp dem. gis nga Sonko mel na Sonko nga gis ak Guy Marius Sagna mu téye ko moom na xoolaat boppam moom Sonko na xoolaat ni ko entouré bu baax a baax a baax a baax parce que dafa doy waar de. Mhm. nit ki di nga nekk ak di nga nekk ak euh, son yi bu. Mhm. nga di ko wax naan son yi bu son fekk sa defe rek laa bëgg de. na xoolaat boppam bu baax a baax. ak ki def bi ne xaw ma bi ne gar la xaw ma lu mu doon na ko Ousmane Sonko xoolaat. ok ñoomu neen la. non kooku bi nekk ñoomu neen la. wax ni ñoomu neen la ay ja xam naa ni gii takkee woon kii moom saa ñu paree bëgg naa la ko. takkee dafa metti moom. waaw bëgg naa woon ndomba téye saa téye nii téye bu dëgër. bu ko defee wiic wiic ma xool ba xam saa bu tëddee suba nu muy demee. aja ko moom moom mënu euh, waa ji de dafa mel ni kon am na ñuy dute naan ñoomu nee na comme li sukaa wax mais boo sukkandikoo ci lii di xew. moo ko ñoo génnandoo ci kër gi mosul sori cortège Ousmane mosul mosul sori seen biir mais ci erreur yu mel nii naroon nañ ko ci euh, musibaal waaw man na euh, et dangereux nag. Mhm. pour pour pour ak fii réew mi toll. Mhm. Euh, moo tax vidéo bi ma doon interpellé sànq mu naa moom mi ngi ci kanam. waaw moom mi ngi ci kanam ak ñoom Ousmane Sonko. si gis naa ko ci vidéo bi. Mhm. donc muy loo xamante ni aussi euh, mu dalay wan ne rek réseaux sociaux yi. Mhm. ñu ngi ci ñu ngi ciy sacrifier ay nit wala di xëy poste nit. te yëgul li xew xamul li xew nii rien hmm. donc man man je crois que lii nii bakkanam xajoon na ci hmm. parce que kenn jegewu ko woon moom doo nga ko jege dëgg la en fait à part Guy Marius Sagna mi ko wër ndombo hmm. ak euh, élément GIGN ni xaw ma moom rek moom amunoon a jëllu loxoom foofu donc jox na ko vinaigre jox ko vinaigre loolu du woon du du woon moment pour mu def loolu parce que automatiquement après après après mbir moomu rek dañ ko encadré def ko ci réseaux sociaux yi donc dafa am loo xamante ni même bu sa nit nekkee ci benn danger bi. Mm-hmm. da ngay dem ak sa xel. Mm-hmm. mais pas nii parce que réseaux sociaux yi. est-ce que du jaaxle Adja. non non parce que na ñoo xam ne bala ñoo réfléchir nan laa war a def. dañuy daw ci affaire mbir mi ba pare pour secourir ko. waaw c'est waaw est-ce que du peut-être loolu la. waaw mais mais mais man daal lu mu ci mënti doon. Mm-hmm. réaction des fois dañuy wax ni ku ku tiit wala dara du réfléchir. Mhm. mais ñu ciy ànd ak xel baax na ci. mais man waa ji mënuma koo taqal dara parce que gis naa ay photos yu bari ci internet bi yu mu ànd ak Ousmane Sonko. Mhm. yi ñu toog yi ñu taxaw yu bari gis naa ko. Mhm. donc amuñu benn raison te képp ku jege Ousmane Sonko xam nga nii eh, naka yaa wala Yarga. Yarga Yarga si mii. nitu Ousmane Sonko la te jege na ko bokk na ci ñi ko jege rar personne yi ko jege. si waaw d'accord noo jàngatee vidéo bi nga xam ni mhm. euh, wax dëgg yàlla seetal na waa ji maanaam bu ñu gisee deuxième bi mhm. dafa wane ne waa ji mhm. ci soppee Ousmane yi la bokk bu leen ko booleek ñi nga xam ne dañu ne woon état bee ko yónni pour mu poisonné waa ji waaw xam nga da ngay seet fa la gën a jege mu jaare fa ba yàq la euh, gis nga loolu euh, bés boo ci doxee baaxut parce que mooy dootoo wóolu kenn waaw te boo joxatul confiance kenn. Hmm. nit ñi bàyyi la ak sa waaw nekkatoo ci sécurité. mënatoo am sécurité. si nit il faut que nga wulay nit. Sankara bi ñu ñee ko Thomas Sankara bi ñu ñee ko Blaise mi ngi lay fexeel da ne kon dina ma am. waaw hmm. ah loolu. parce que du ko bannir du ko kii. ko jege da ah, ko kii wax fu amee info bi ah. Euh, maanaam ki ko wax fan la jëlee info bi. non ko dane ko Blaise dina la mi ngi lay fexeel. kon ma rey mu ne ko kon dina ma am. parce que dina ma jekk parce que dina ma wóor hmm, wóolu. parce que moom. da koo wóolu jox na ko confiance te du ko dindi. waaw dégg yaa ngi dégg que bu fekkente ne bii dindi nga tey jii booy dindi say ñi nga wóolu. di nga dem ba dootoo wóolu mbindeef. Mm-hmm. dootoo lekkati sa xel dal. doo naanati sa xel dal. booy génn maanaam da ngay dugg ci kasu boo xamante ne bi yaa fay emprisonné sa bopp ilaa yawmi ku lay jege sama day man man lay <laughs> <laughs> ay sa sa non sa waay wax rek. sa waay jàppale naa wóor na yàlla day wax. rek am na lépp am na téléphone am na lépp. saa saa yi xam nga moom mooy mm. loolu. nga ne kon boo wóolootul kenn nekkatoo ci si non nga wóolu ay nit quand même. damay ñëw wóolu son yu mi wóolu suka jox leen confe wóolu béti mhm. ne bon ñii kat ak Omar bi ma ñii doy nañ ma mhm. Mhm. léegi ñooñu ma doy nag ci biir ñooñu nag ku ci def leneen yaa def sa yëfi bopp mais man doy ngeen ma c'est il faut nit ki par yenn saay mu doxee noonu bu bëggee dem waaye bu ne eh sukaa mii ni ma xoolee démb kiiw ma parce que du mooy topp bi fi mu toll nii fi ma toll il faut ma moytu ko gis nga boo moytoo sukaa léegi nga gis lu mel noonu sukaa day wax ki son bu tamit na ah man de naa def ndànk kon de man léegi tey mu kii ma bu ko defee may seet ah, son son mi tamit dafa mel ni mm. changé na mi ngi mel ni kii kii di la moytu finalement dama lay moytoo moytu ba mujj gi vide nag ñu daal ñu faagaagal ma mm-hmm. donc loolu mooy ne leneen li nga xam ne mooy li ne euh, jàpp naa ni waa ji li nga wax dëgg la mënoon nañu ko faat parce que ci erreur. Mhm. loolu mënoon na ne. Mhm. donc sunu boroom bon dimbali na ko ba après am ñoo xamante ni xam nañ ko leer teela a leeral mbir yi. Mhm. mais tamit aussi am na leneen lu ci génn. leneen lu ci génn mooy. Euh, ak situation bi ni mu meloon noonu yëpp. ba ñu mën a filmer loolu ni mu ruqee yëpp. ñu mën laa génneel mbir mi. moo lay wan tamit loolu message la pour képp koo xam ne yaa ngi waajal ak. caay caay ah, d'accord. ne kat yéen ñiy waajal caay-caay it situation bu mel ni bu amee bu leen yaakaar ni mën ngeen a nëbbu de. mën nañ leen a xar ci ba génneel ne la yow mii la. nga hmm. xam sa bopp te boobaa it mën nañ la partager. donc mbir la moo xamante ne bi paaka ñaari boor la. Hmm. mënoon naa bon mais aussi tamit bu yàlla kii na mais aussi tamit mën na baax ci beneen côté ba ñeneen ñi nga xam ñi ngi waajal loolu mën nañu wax ne. Hmm. ah sa waay dafa mel ni am na ay kii yu ko topp ak xaw ma ñu fan la gaa yi topp donc am na yoo xamante ni bi wóorut am na ñoo xam ne mën na leen a mhm. tiital bañ ñee du ñu def yenn yi mhm. mais li am solo xam nga man parensaay démb Omar ñi ngi koy wax ah. fii ak waa ji démb bi ma toogaatee di seetaan bi ma toogee di seetaanaat émission bi waaw bi ma toogee di seetaanaat émission bi dama ne ñi ngi jugé parensaay garde corps Ousmane Sonko yi te niñ leen di jugé pour man baaxut mm. xam nga lu tax mm. parce que dañu wax ne Omar ne ak waa ji ñu ne Ousmane Sonko amut sécurité waaw mais c'est que bu dee dañuy juger ñàkk sécurité Ousmane Sonko ci ay forces de l'ordre yu ñëw ci kawam. Hmm. bokkut ak ñuy juger nit ki parce que Ousmane Sonko bi muy jël ay sécurité jëlut sécurité pour ay force de l'ordre yu ñëw di dal ci kawam. mais dafa jël sécurité pour leneen. Hmm. bu fekkoon ne dañoo gis leneen lu dul force de l'ordre parce que ñi le fait que bu ñëwee rek am na loo xamante ni bi mënuñu ko def ak force de l'ordre yi. Hmm. duñu xeex duñu def dara. Mhm. force de l'ordre yi li ñu bëgg def dañ koy def. parce que ñoom am nañ sax professionnalisme téye seen bopp. parce que am na ponkal yoo xam ne boo leen jëlee duñu am force professionnalisme téye bopp de dañuy xeex. Mhm. tem ñu xeex leneen am ca. mais ñii dinañ mën a téye seen bopp malgré que li ñuy sibir dinañ fexe ba du ñu xeex. loolu pour man lenn la ci professionnalisme. Mhm. donc pareen saay euh, nañ leen di juger selon tamit ñii ci li ñu nekk nii quoi bu fekkoon ne Ousmane Sonko dafa dem fële ay agresseur koj ko. Mm, situation bi demee fenn ñu yegg ci Ousmane ko bu boobaa. ñu mën a wax ne euh, sécurité bi doxut. waaw mais bu dee sécurité boo xamante ni bii tey ñii ñëw. amoo ci ñoom sañ-sañ te ñoom ñu am sañ-sañ. waaw waaw amoo ci ñoom sañ-sañ te yow ñoom ñu am ci yow sañ-sañ yow ñu nga xam ne boo waxee sax yow ñu jàpp la dugal la ci oto tëj yóbbu la. Mhm. kon donc foofu mënoo fa juger garde corps. d'accord kon donc loolu. Euh, mu mel ni vidéo yi sooy bu dama bëgg rek. waaw kii nii maanaam bu dee nii li saa wax yooyu yëpp am na. ci garde corps Ousmane Sonko yi kon est-ce que nekkul ni kon état bi nag day am intérêt moom sàmmal Ousmane Sonko kaaraangeem man. waaw loolu lay wax maanaam bu ñu demee ba toll situation bi. Euh, kii nu ñu ko waxee tey Abdoulaye Wade euh, candidat wu ndaw si. parce que joxoon na président Macky Sall sécurité. parce que état bi non dama ne dama ne. Abdoulaye Wade dama ne Wade sa président bi Wade joxoon na sécurité Macky Sall war wax nii gis nga état bi dafa war a xam lenn. dafa war a xam ni. gis nga jàmmi Ousmane Sonko jàmmi réew mi la. tey jii am na loo xamante ni bi bu fi amee. bu fi amee bu boobaa réew mi mën na dugg ci guuta goo xam ni. maar day taali comprendre nga. donc am na loo xamante ni bi lii Omar wax. loolu waruñu ko exclure. waa léegi moo tax ma ni kii war na ko def moom laay fàttali kii dama ni ko Wade. ay jamono président Macky Sall mii. waaw Wade joxu ko à sécurité ah. <laughs> waaw mais loolu laa wax kay Wade defoon li Omar wax président Wade defoon na ko joxoon na ko président Macky Sall. xam nga Wade. waaw Wade ñu bari mere woon nañ ko ay jamono. ko ni démocrate. waaw parce que Wade ñu bari mere woon nañ ko ay jamono. waaye tey lañ ko mais Wade tey la ñu bañ xam nañ a eh, a de. dana yéen a ngi bàyyi a nit koo xam ne da ko da ngeen ko regretté la. non moom boobu. non Yaya moom non non ay Yaya ay waxam ay wax yaa dafa mere woon Macky rek parce que Macky da koo génne da koo. <laughs> waaw yaa dama da Sall daal dem euh, participer lu tax. waaw ah, mais noonu la woon. mais loolu bien après <laughs> waaw mais mais ak lu mu ci man doon daal. président après Wade euh, parce que après mere Macky. ah ah, ah président Macky ah, waaw waaw ma mayaat la tuuti. voilà euh, léegi beneen bi voilà cadre léegi beneen bi ma bëggoon dool te Omar dugg mooy. Mhm. vidéo yi boo xoolee ñaar la beneen bi bu dee gis ngeen ko. Mhm. dafa am waaju ñu wane mu génn ci oto bib bi mooy fi ñu dugal Ousmane Sonko yéen a ngi koy gis. mu génn ñu ni voilà kii lañ dugaloon fii pour mu def fa la lam fay def ñu dugal Ousmane Sonko. waa léegi waa ji du benn waa moo tax bi ma ko Assane joxee ma ne ko Assane léegi vidéo bi nu mu demee Assane may wax de xabaaru Assane laa leen wax. <laughs> Ah, ah, ah, Assane may wax mu ni ma mu ni waa ji dañ koo jàppoon. biñ ko jàppee di lang-langi di lang-langi biñ demee ba xam léegi jàpp nañu Ousmane Sonko te fii lañ ko war a dugal nee na ñu génne waa ji dugal Ousmane. <laughs> <laughs> ma ne ko léegi léegi bi police kañ la daan jàpp nit bàyyi mais lu tax duñ koy jaay génne dañ ko essence <laughs> waaw non non waa ji bi ñu ko bàyyee dafa dem. Ah, waaw dañoo essence waaw moom moo ko wax information. waa ji xam na pompe yi wax. xam am na ne pompe ci biir oto bi la ko fekk. Ah. am na ñu mu génnee ci biti am na am na ñu. non vidéo bu leer la ci biir oto bi bu bi leer naa ko bu leer nañ la bi la. eh non non bi nekkoon fa moo ne. moo moo ne may ko may may ko vinaigre. gis naa ko bi ñu saqat noonu. waaw ndaw si moo ne may ko vinaigre après Ousmane si mi ay dàllam Euh, ñu def dañ jëlee vinaigre après ñu joxaat ko ah, moom vinaigre boo ko vinaigre la boo ko daal dafa am manipulation yu bari ji mhm. nga bi affaire bi ne cët ne na pompe nañ Ousmane Sonko kërëb kërëb nañ ji nga information bi nga boo ko dundee à mhm. ci ngay comprendre lan moo indi ñu photo photo waa ji mhm. waa ji ni naan moom lan moo doon pompe Ousmane Sonko te mu ànd ak moom gàllu ko xam foofu xam dama lay dama lay dama lay jox benn exemple ji nga bindee cët na jon xam nga lool bu ne pompe nañ Ousmane Sonko rek xel yëpp ci takk der lay jëm ak nguur merci beaucoup léegi nag ji nga ji nga ci instant boobu ci la photo waa ji génne ña ñoo am intérêt pour génnee garde corps Ousmane Sonko bi ah du garde corps. non maanaam rek ci accompagnant yi. ñu xamul rek mën na nekk ñu xamul. mën na nekk ay euh, mën na nekk ci seen euh, biir ñoo xamante ne bi dañu ànd ak Ousmane Sonko mais xamuñu. xamuñu ah, waaw parce que am na ay yoo xamante ne mooy waroon Omar dañoo nekk de loin. dañuy capturer rek. Omar ñoom ñëpp ci seen biir la dañuy capturer rek. xam nga ñëpp ñoo doon live léegi ci biir live yi li saa wax moom la dañuy capturer live yi. Mm. léegi boo capturer nag nga. kaddu jeex na waaw kaddu jeex na. jërëjëf jërëjëf. Adja jërëjëf jërëjëf mm. ah. nu desee des na ah yokk ci deux. Eh, yokk ci deux. kii ah. amul dix. waaw dool ko ànd. Ah, saa si kaa nga faral tey. koo yërëm. yërëm mu ma yë kan. bàyyi ko wax tëjee. yërëm. mi ngi noonu beneen bi ci des mooy ah, Adja. su am beneen bi ci des mooy damay damay damay def benn alerte. Mhm. xale yi nañ bàyyi kilifa yeeg communicateur mhm. traditionnel yi ñuy wërale ci groupe WhatsApp bi mhm. naan nervi religieux yaa ngi nii loolu ay ay victime lañ non non non vraiment. <laughs> parce que gis naa ci ay kilifa yu bari yu ñuy def. ngol ngol mii deux ci la bokk ñu ni communicateur euh, euh, nervi communicateur traditionnel la. ngol ngol moom discours ko léegi nag booy Omar nañ bàyyi nag ñi ñuy def loolu nag ay kilifa diine kilifa diine yi ñuy jëlit ñoo bu ma ne kilifa diine nag du ay xalifa généraux gars yi boo ne kilifa diine ñu ne xalifa généraux kilifa yi ñuy jël maanaam dañoo nekk ay sët mais dañoo jël position ci mbir mi am na ñuy waxee léegi booy ranger leen daan ni ñi ñooy nervi religieux yi mm. maanaam ci conscience ñi ngi yàq ay nit ñoom mm-hmm. kilifa yi loolu laa leen tuddee ndax am na kilifa gu fi génn barki démb ba confirmer que Ousmane Sonko dafa violé mm-hmm. te ci l'islam bu fekkee jàng nga viol ñeent ba ñett war a ñëw confirmer ko ba pare ñëw fekk ñu ni kuur gi ci gën gi loolu la ñuy wax mooy mooy mooy acte euh, njaaloo mm-hmm. te loolu nag defe naa kilifa gi ku ko waxoon waat ko du ko waat mukk ni Ousmane jote na ak uh, Adji Sarr. waaw nañ bàyyi ci kaso ku ci deful dara ñu bàyyi la nga ñibbi. waaw waaw ñu bàyyi la aja mi ngi aja kon nañ bàyyi ñi ñuy wax ay nervi religieux am na ndax des fois ñu naan la tëjal mbaa ma tëj loolu xeetu nervi la. ah dëgg ah, la waaw tëjal mbaa ma tëj. nervi ah. <laughs> non ah ku la wax. Eh, animateur waaw c'est vrai moom la nervi <laughs> nervi animateur waaw parce que euh, tëjal mbaa ah, ma ay a ngi na nerf bi animatrice parce que yow sama xarit bi bu ñu gën jaxase nerf animatrice nga laa wax ma ne animatrice ak kii nerf bi baa ngi nii ayca parce que bu ñu waxee nga ne bu ñu waxee nga ne ñu tëjal mbaa ma tëj loolu day wane ni nervi yi yéen bu <laughs> tëjal mbaa ma tëj boobu dina dakk waaw <laughs> jërëjëf na